bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala sayidina wa xabibina wa shafiina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati alkiram mustamiuna alkiram maali alulama ashaab alsamaha asxaabal fadila ayuha saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ixwatil kiram samahata shuyuux asxaabal fadila xaniyaan lakum kullu aamin wa antum bi xayr bokki jullit yi ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndakaaru dellu siwaat nag yéen seen émission yi ñu leen di jagleel ci weeru koor wi ñu tuddee ko waxtaanu koor muy bis bu yàlla sàkk incha allahu 14 heures incha allah ñu yàgg ko baaxoo def ak yéen nag ren jiit yàlla jaglewaatal ñu ko nu fas yéene koo def yal na nu yàlla may ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di ci ndokkeel sunu kilifa sunu njiit ci rajo bi alxaji Baye Omar Gueye di ko ndokkeel di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ak wérle tal ak fekke di ñaanal mboolem collaborateur yi nga xam ni ñoom la bokkal liggéey bi ak kilifaam yi nga xam ñoo yan ñoo ko yan liggéey bii mu ne ci bopp ba di ñaanal waa réew mi ñëpp nag ku fi yewoo góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp nu ngi leen di ñaanal yal na nu yàlla may nu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp lu nu ci jaamu yàlla yal na nu ko yàlla nangul te fulandel nu ko lépp lu nu ci juumit yal na nu ko yàlla jéggal te sutural àdduna ak alaxira yàlla sañ nga ko man nga ko yàlla nga nu ko defal yàlla yàlla nga nu ci jàppandal lu nu mën a xëdde jàppal na loolu ñu ci lu mën a ndogoo te nga jàpparan la ndal ñu ci tam lu nu mën a dimbalee ñi nu tane bi jaaxisit wujud wa alami te eh, nuyu nañu ñëpp ziar nañu ñëpp di beral nuyu itam suñu sponsor yi nga xam ni ah ñu ne ñoom ñooy ànd ci liggéey bi di nuyu ñëpp tabaarakallahu yal na yàlla barkeel liggéey bi nii ngeen di dugale seen ñaq ci liggéeyu lislaam bi yal na yàlla fay leen ko fii fay leen ko fa jëm te yàlla defal leen barke mbokk yi ren incha allah dañu fas yéene ànd ak yéen ak sang bi aleyhi salaatu wassalaam sayidul wujudi wa alami shuhud sangu-sang yi géeru géer yi jàmbaari jàmbaar yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ni tur wu nekk yàlla tudde na ko ko ngir njàmbaaram ngir mbaaxam ngir yërmandeem yàlla mi nga xamante ni moo ko tudde euh, tur yu bari tax wax nañ ni euh, bari tur yor bari tur dafay wane ni dafay wane njàmbaaru nit ki sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammadun ahmadun xaamidun mahmudun ahidun wahidun maahin xaachirun aaqibun tudd na taaha tudd na yaasin tudd na taahir tudd na mutahir tudd na tayibun koo koy sayidun rasulun nabiyun rasulu rahmati qayimun jaamiun muqtafin muqtafa rasulul malaahi rasulul raha kaamilun ikliilun kooku tudd na mudassirun yàlla tudd na ko muzammil tudd na abdullahi xabiballah safiyatullah najiyullah kalimullah xaatimul anbiya xaatimu rusuli muxyi munji muzakkirun naasirun mansurun nabiyun nabiyu rahmati nabiyu tawbati xarisun aleykum sallallahu alayhi wa sallam tudd na maalumun tudd na shahirun tudd na shahidun tudd na shahidun tudd na mashhudun tudd na bashirun mubashirun nazirun munzirun nuurun siraajun miftaaxun hudan mahdiyu muniirun daacin madcuwun mujiibun mujaabun xafiyun cafuwun tudd na waliyun xaqun qawiyun aminun maamuunun karimun mukarramun makiinun tudd na matiinun tudd na mubiinun muammilun wusulun zu quwatin zu rahmatin zu makanatin zu izzin zu fadlin mutaaun mutiun qadama sidqin rahmatun bushra xawsun xiyaasun xaysun nicmatullah hadiyatullah urwatul wusqa siraatullah siraatul mustaqim tudd na zikrullah tudd na sayfullah tudd na xasbullah tudd na najmu thaqib tudd na mustapha tudd na mujtaba tudd na muntaqa tudd na umiyu tudd na muxtaar ajirun jabbaarun abul qaasim abu tahir abu tayib abu ibrahim mushaffaun shafiun saalihun muslihun muhayminun saadiqun musaddiqun siddiqun sayidul mursalina imaamul muttaqin qaidul qumril muhajjalin xalilur rahman barrun mubarrun wajiixun nasiixun naasixun tudd na wakiilun tudd na mutawakkilun tudd na kafiilun tudd na shafiiqun muqiimu sunna muqaddasun ruuxul qudsi ruuxul xaqi ruuxul qisti kaafin muktafin baaliqun muballaqun shaaficun waasilun mawsuulun saabiqun saayiqun haadi mahdiyun muqaddamun azizun tudd na fadilu mufaddalun fatihun miftaaxun miftaaxu rahma miftaaxul janna alamul iman alamul yaqin dalilul xayraati musaxixul xasanaati muqilul asaraati safuuxun ani zalaati saaxibu shafaa tudd na saaxibul maqaam tudd na saaxibul maqaami saaxibul saaxibul qadami maxsuusun bil izzi maxsuusun bil majdi maxsuusun bi sharafi saaxibul wasilati saaxibu sayfi saaxibul fadilati saaxibul izalati saaxibul xojjati saaxibu sultaan saaxibu rida saaxibu darajati rafia saaxibu taaji saaxibul maxfirati saaxibu li liwaay tudd na saaxibul miraaj tudd na saaxibul fadila saaxibul qadiba saaxibul buraaq saaxibul xaatami saaxibul alaamati saaxibul burhaani saaxibul bayaani fasiixu lisaan mutaxarul jinaan raufun rahimun usnu xayrin saxiixul islaam sayidul kawnayni aynu naimi aynu lizzi saadullah saadul xalqi xatibul umam alamul huda kaashiful kurab raafiu rutabi izzul izzul arab saaxibul faraji sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yaa rabbi allahuma yaa rabbi bi jaahi nabiyika almustafa wa rasulika almurtada tahir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an mashahidi an mushahadatika wa muhabbatika wa amitna ala sunnati waljamaati wa shawqin ila liqaika ya zal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kooku mooy gaynde gi kooku mooy gaynde ñuloor gi kooku mooy jàmbaar ji kooku ay ki nga xam ni bu du woon ak moom dara du am te daan ci ñëw léegi incha allah ngeen xam ki ñu amal affaire ku mu doon mooy bàyyi Fatimatu mooy bàyyi Roqeetu mooy bàyyi Umu Kalsum mooy bàyyi Seynabu mooy bàyyi Ibrahima ak Abdullahi al al Qaasim kooku mooy góor Aminata moom mooy góoru Xadijatu di góore Aïcha ak Sawdatu Hind tabarakallah di ngeen ci xam dara nag incha allah ren ci présentation bi ñu xam Sayyidul Wujudi wa alami nga xam ni. moom la ñu fas waxtaan ak moom la ñu fas yéene waxtaan ak moom di ci nag ak nag euh, aarif billah magum yàlla mag muy yiw te sell yàlla baaxe nu ko muy seydil xaaji Maalik Si radiyallahu taala ci téeréem bii nga xam ni moom la tuddee xilaasu zahab fii siirati xayril arab tabaarakallah euh, ginnaaw li nu ci xam néew ñu tàmbalee téere mbokk yi ci li ñu xam si xaj Maalik nee na avant luy jiit ma wax yaa xaa'isal baxri lil asdaafi biha durratun ala min al jalabi si xaj Maalik nee na yaa xaa'isal baxri yow mi nga xamante ne yaa nar a xuus géej lil asdaafi ngir am wurus gal rikkiwaay noppalul indi ya Maodo bii baat rek la mos wax nag joxar bi boppam indi nekk na fi man durratun wurus woo xamante ni ala moo gën a rafet minal jalam ci jalam boo ko doo ko déggee noonu da wax ni si jaañ maa ngi yow mi bëggoon ñaan am bourse wala bëgg a ñaan bourse pour dem ci dëkki arab yi ngir xam maami bi xam diine islaam nee na boo la yóbboo nga toog soo amul bourse amoo moyen nee nga toog ñu ne ko lu tax si mu ne indiya ndax man fii ci Tiwaawan asdaafun am naa fi xeeti xami bi yoo xamante ni ala moo gën a wér ala moo gën a jub minal jalami nga koy jële ca dëkki naar ya ñooñu dañoo xonq ma ñuul waaye sama xam-xam weex na na seen deree weexee kooku lañu fa seen àndal incha allah mu Seydi Hajji tàmbali téere bi dañ ci sant ni alhamdulillahi si ijaadi wal qadami mumiddina bi wujudil badri zil qadami summa salaatu wa tasliimun yafuuqu ala miskin wa rombin ala zil fadli wal qidami wa aalihi almuhtadiina alxiirati alkurama almutami sirati almuxtaari walqadami maa araada alracdu walwarqaau tunhibu min hadiilihaa wa jara damcun min alqalami radiallahu taala anhum si xaj maa ngi nee na alhamdu maa ngi sant yàlla wala nga ne alhamdu mbooleem xaaji cant yépp lillaahi ñeel na yàlla xeeti cant yi ban ak ban xamdul qadiimi lil qadiimi cant gi yàlla gi bàyyi ci yàlla di dellu ci yàlla cant gi yàlla di sant boppam minhu lahu cant gu jóge ci moom delluwaat ci moom kon yàlla mi ngi sant boppam ci maqaama mi mu toll di ko delloo ci boppam ci maqaama mi mu toll minhu lahu mu tolloog laysa ka mislihi shay'un dendul ak lenn màggandoowul ak lenn du kenn kenn du moom tàmbalewul fenn yamul fenn abadiyun azaliyun yàlla mbir la mu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem moom képp a fi nekkoon lu jiitu amul lu naan lu ñuy référé wu ci ci dat wala ci nekkinu leneen lu dul lu ñu naan ba mu fa loolee nekkeek nàngam nekku fekk kenn kenn nekku fekk moom sosowul ci lenn te it euh, dara lépp ci moom la ci lépp moom ci lépp la sos lépp ci moom la sosoo mu mooy xamdul qadiimi lil qadiimi mooy cant gu bàyyikoo ci buur bi tey dellu ci buur bi laysa ka mislihi shay'un yàlla daal nuróowul ak dara dara nuróowul ak moom ñaare bi xamdul qadiimi lil xaadis cant gu bàyyikoo ci sunu boroom jëm ci mbindeef yi mu sos kon yàlla sant na nit muy minhu li yi cant gu bàyyikoo ci moom jëm ci leneen lu dul moom mu tolloog ni'mal abdu innahu awaab mu delloo ko ci yonent yàlla ayuub yonent yàlla ayub dafa doon yonent am taraanga am doole ami njaboot am lu dul jeex ñépp bëgg ko moom yonent yàlla ayub mu sant yàlla lool di delloo ci yàlla delloo di delloo ca yàlla lu xew mu delloo ko ci yàlla bëgg yàlla sopp yàlla waaye nag mbokk yi yàlla moom boo ko bëggee rek mu nattu la yàlla ku ko bëgg mu nattu la moom yàlla moom bu doon am na lu muy tëlee dañuy wax ni xarit la gën a tële ndax moom xarit dafa la dul jàpp xarit te nattuwu la laajal Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaam ba mu ne dafa sopp yàlla avant muy am garaatu xalilullah fu na jaar na fa naan daañ da ñëw ci ay waxtaan insha allah waaye ayuba mi itam noo la ko dal sopp yàlla bëgg sunu boroom sunu borom nag bëgg a xam ndax lii dëgg la ci moom walla déet yàlla teg ko nattu nattu feebar tëral ko alal ja di seey alal ja di dem ba amatul dara jabar ya ñaan baat ba ñëpp dem ba mu des aawa ba aawa ba mënul dem ndax aawa ñaareel toujours moom day ngiro ngiroo saan mu toog fa rek xam nga ku ne mën naa dem ku ne mën naa ñaan baat ñaan baat dem maanaam boo ne yunnu xool gisatoo gisoo loo xam mën nga daal ni may met jaar ne dem sa yoon waaye aaw moom lu mu métti métti du dem loolu moo dal ñun teel ayuba alayhi salaam ndeysaan muy dem mënatul dara lekk sax aaw bay dem fóotaani ñu fay ko mu ñëw togg ci añ dem wéri póot ma paase door a ñëw toog ki la doon liggéey ndeysaan nekk ci loolu nekk ci loolu ba bis nag mu xëy wër wër amul lu mu liggéey mu guddee lool waaye comme dafa amoon kawar mu dagg benn jubbi ñetti jubbi yi mu amoon mu dagg benn bi jaay ko am ci lu mu dépense gis nga ku ñaare taxawu ko feebar dafa métti taxawu ko feebar mi feebar ki feebar daa ah, moom métti leen waaye taxawu ko feebar moo gën a métti ndeke li soxna si yàgg tax na ayuba di poser question fan la nekk ba nëga ni ah xam na léegi wéruma moo tax mu di ma fonto bu jógee nekk ci boppam ñëw nit li sama bàyyi ma fi nanga nanga commencé xultu bi soxna si ñëwee nag ndeysaan guddee ñëw ndax mënu woon ñëw te indiwul lu mu togg mu ni ko yow sama tëraay bi moo tax nga di ma fontoo waaw li ma tëdd nii mënatuma dara waaye xam nga ne tey dé léegi la waaye démb démb raxa raxasit ndox la woon waaye bu ma yàlla maye ba ma wér dinaa la dóor téeméer yar xoolal rek gis nga maanaam ku feebar tuuti ñaar day naq deret moo tax yéen ñi nga xam ne yéenay taxaw <clears throat> malaat yi ci hôpitaux yi na ngeen gën a dal te ànd ak yërmande te ànd ak xol bu muñ soo gaawee gedd wala nga gaaw a gis sa bopp kii tëdd mënalul boppam dara xam nga bu sañoon du tëdd foofu yow mi yàlla tëralul nag yaay yaatal sa dënn foofu sut nag bu dee sa waajur wu tëdd la muy sa baay muy sa yaay na ngeen jaamu yàlla bu baax ci waajur yi ndax yaa waajur wu dem yóbbaale xol bu sedd loolu ñaan la goo mel ne bal te ci say maas kenn dootu la ci jiitu incha noonu la xàkk sa mbokk yi lekk soxna seen i cere rek mu togg ñu lekk mu muñ rek moo benk ñenki mu benk ba benn bis nag wenn sax walla max guy lekk ci yàpp ci yaramu ayuba yéen ci la ayuba ba xaw a laal xol bi ayuba daal ne la ilaha ah, looy looy def ni da wonk lu xew da ngay saalit ayuba ne ko déedéet yàlla bu ma saalit mu ne ko kon lu waral wonk gi nag mu ni ko sant la rek ak bëgg la ndax na nga ma defoon yow la woon nii nga ma def tey yow la waaye dama gën a yiimu ci yow xam ne lu ne man nga ko ma rafetoon àgg ca kaw am doole am kàttan nga jox ma alal àddina bi yëpp fëx wut si ma ndeysaan nga xëy di ko nangu di ko nangu ba ñépp bàyyi ma nga nangu alal ja yemoo ca nga teg ma feebar mënatuma jóg fi ma tëdd ah yemoo ca nga yebal aw mbindeef woo bind mu ñëw tii ma nii di ma lekk ma ndax loolu naqariw ma waaye xol bi ma dese woon di la ci tudd nga xam ne xol bi kenn nekku ci woon ku dul yow ngay seetaan mu fas yéene ko lekk loolu rek da moo may yéem waaye du dara yow leew naa la doom nu la neex ci man rek loola may li may neex maa ngi lay sant te di la gërëm suñu borom ni ka ah, dëgg-dëgg sama jaam bi daal eh, gor la waaw ni'mal abdu innahu awwaab sama jaam bi daal jàmbaar la moom daal lu nattu yi tar-tar rek innahu awaab rek dellusi na ca man rek xam ni man la suñu borom daal di koy mayaat mu wér mel na mu meloon delluwaat ko alal ja nekkaat ka mu nekkoon sunu borom ni ko nag da ngaa waatoon te yonente nga ndax da mën sa jabar jii di nga ko dóor téeméeri yar te deful dara sa wax warut a kii jëlal banti bale jëlal téeméeri banti bale nga takk aw say bàcc ko ko benn yoon mu ngoog gis nga yàlla yërmande suñu borom alhamdu alhamdulillah ñeenti xaaj yëpp lillaa yàllaa ko moom alhamdu ñeenti xaaji cant yëpp yàllaa ko moom cant gi muy cant boppam cant gi bàyyi ko ci moom tey dellusi ci moom moom laa jëkk wax léegi mooy laysa ka mislihi shay moo wax la ni hamdul qadimi lil hadis cant gi yàlla di sant mbindéef minhu li xayri yi di bàyyi ko ci moom te du te jëmul ci moom dem ci nit mu yont yàlla ayuba niaman abdu in huwa waab xamdul xaadisi lil xaadisi cant gi nit di sant moroomu nitam min xayrihi li xayrihu li xayrihi cant gi bàyyi ko ci mbindéef jëm ci mbindéef mu tolloog jazaakumullaahu xayran yàlla na ñun yàlla wuutu ci fayal nu la jazaakumullaahu xayran yàlla na yàlla wuutu ci fayal nu la ma ngoog kon ñett nga noonu ñeenteel mi nag hamdul haadisi lil qadiimi cantu mbindeef bi sosu jëm ci yàlla mi sose ma ngoog min xayrihi lahu cant bàyyi koo feneen jëm ci moom mooy suñu borom subhaanahu wa ma ngoog kon ñeenti cant yooyu si daa ajmaa wax ni alhamdulillahi ñeenti xaaj cant yépp yàllaa ko moom am na ñu ni cantuk ibrahima ga ibrahima ko yàlla ne rendil sa doom mooy ismaila mu jël paste fas yéene koo rendi mu woo doom ji ni ko yàlla nee na naa la rendi doom ji nangu yaay ja itam xolum njuréel na mu neexe ci doom merul saalitul nangu ñu rendi doomam walla boo sax nga ni jibril alayhi salaam kere ba Ibrahima di jël décision pour rey doom ji suñu wam dani ko soo sàgganee ba mu ne doom ji dinaa la dégradé dootoon doon ki nga doon ndax jox naa la mooy yi nga xam te moo ci war keroog laaf yëpp la naawe jël xar ca àjjana ronal ko Ibrahima mu rend xarma fekk na doom ji xarma itam nangu ñum itam mu ba bakkanub yonent sowee itam njigalu yonent lu yàlla jox ab yonentam mu waroon ko exécuté yàlla eh, dogal bi Ibrahima rendee xar mi ba pare geestu yam ci doom ji daal ni alhamdulilahi rabbil alamin ba ma juyewul ak sama ndigalu boroom ngir amuru doom ak cofeelu doom waroon naa mën a tax sax ma gàntal kon yàlla jéppi ma waaye def naa la ma waxoon doom ji ni may alhamdulilahi rabbil alamin ndax ren ni mu mettee ma nangu ko yàlla sooy ma ci tey nii saalitu ma ba ñëpp jéppi ma kon alhamdulilahi rabbil alamin jibril ni alamin ndax su ma yeexoon mbaa leneen am ba xew-xew bi am ñu dégradé ma ci kon doon na gën a metti kon alhamdulilah rabbil alamin xar ma itam sant yàlla bu baax ci soowee gu mu soowee bakkanub yonent ak doomu yonent am na ñu wax ni cant goog itam ñeenti xaaji cant yooyu neen lépp lillaahi yàlla moo ko moom mu ni sil ijaadi yàlla mi nga xamante nii moo jële ci ñàkk jëmale ci am maanaam nara ki ki jële ci ñàkk nara jëme ci am nara jële tam ci am delloo ci ñàkk bi dara dul dara moom képp moo fi nekk moom sunu borom subhaanahu wa nekk googu mu fi nekk nag ci la daldi jële ci leeru boppam daal joxe ndigal leer googa tey yi nga fi gis yëpp mi ngi sosoo ci googu la leer te daañu ñëw léegi incha allah ci biir waxtaan wi mu ni yàlla mi nar mi amal mi jële ci ñàkk yóbbu ci amal nar a jële ci ñàkk ci amal jëme ci ñàkk zil ijaadi moom mooy kooku wal xadami moom mi nga xam ne mooy boroomu jëkk jëkk goo xamante ne asali yun jëkk gu amul fu mu tàmbalee la mu mit dina moom mi nga xamante ne moo ñu tëbbe bi wujudil badari ci amuk weer wi mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi bu amul woon ñun du ñu am kon yàllaa ngi nu tëggee ci leeruk seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam zil qidami moom mi nga xam mooy boromuk jiitu kon muhammad sallallahu alayhi moo jiitu gis nga jiitu suñu borom gi ginnaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ci leeram ci leeru sunu borom subhaanahu wa taala la yàlla xool ak leer mu nekk jëmmi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ci xam dara mu ni summa salaatu topp xéewal wa taslimun ak mucc yafuuqu yoo xamante ne nii moo gën a kawe moo gën a neex miskin misk euh, parfum misk li muy neex neex neex nuyu gii jàmm gii ma ñaanal yonent yàlla Muhammad ak mucc gi ma ko ñaanal ni parfum misk neexe wa randin ak parfum rand alazil fadli wal qadami yàlla na nekk ci borom ngëneel la ak borom tedd nga ga mooy seydina Muhammad sallallahu alayhi ni parfum misk neexe ak parfum rand ni mu neexe yàlla nekk ci sënga bi alayhi salaatu wasalaam wal qadami ak moom yi nga xam ne ak borom moom mi borom tedd nga ga wa alihi moom ak waa këram ña doom yi ak jabar yaag askan waag ñépp ak saxaaba yaag way gëm yaag ñi ca toppoon ak ñi ca toppaat ba ci ñun ñeeg ñiy ñëw ba yaayumi diin si daxaj maa na ñaan googu yàlla na sa mbërtël ba téq leen ñoom ñépp almuhtadiina ñi nga xamante ñoo doon sàkkoor tegu ci njub bëgg baax tax ñuy roy yonent bi sallallahu a baax tax ñuy topp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkurama ñu nga xam ñooy way tedd ndax tedd ngaa ngi ci gëm lislaam tedd ngaa ngi ci bokk ci diine lislaam waaye tedd nga nekkul ci wan ginnaaw lislaam tedd nga nekkul ci alal ju bare oto bu baax ak passeport ak avion ndax loolu lu mu tax nga defe ni yaa gën nit ñi rek ku dul sangu janaa ba dana am na ko kon la ngay gënee nit ki mooy sangu ngay sangu janaaba ak gëm ga nga gëm ak gëm ga nga gëm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na almutami mooy ña nga xamante ne ñooy sàkkoo roy sàkkoo méngu siiratal muxtaari jikkoy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal qadami moom mi nga xam ne mooy boroom ak jeexital sallallahu alayhi wa sallam waa loolu kañ am na tàmbali am na fu mu yem sid xaj maag ne na maa arada raadu walwarqaau tunhibu min xadiiliha wajara damcun min alqalami loolu kat maa arada raadu tànk asamaan saa ngi dënu dënu gi war a tekki mu war a taw te xam nga ni fii ba àdduna bi tukki taw man te ñàkk am na dëkk yoo xamante ne nii seen nawet moo ëpp seen noor boo ko xoolee ci senegal nga xam ne ñun daanaka sunu nawet juróom eh, bu baree ba bari ñetti weer ñeenti weer jàpp juróom weer rek ñu ñu ñu pare ci waaye am na dëkk yoo xamante ni fu mel ne gi dëkki Europe yi daanaka day taw guddi di taw bëccëg si xaj maa ngi ne nag maa araada raaju fii ak asamaan a ngi xiin di dënu dënu gu tekki mu war a taw wal war xaaw te fii piccim pitax ma ngay tàgg di nen min hadi lihaa ca cuujam ba gis nga kon fii yëg picc ngi am rek fii yaa ngi seen picc muy naaw salaatu ak salaam googu yàlla na nekk ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu rek di ret wajaraa te mu ngay daw damun pilim minal xalami bu bàyyi koo ci xalima maanaam fii ak nit a ngi bind di aajowoo bind wala machine yi bind tànk bind mi ngi dotti ko ci pilim di yàbbi ci këyit wala fu mën a yàbbi rek nee na salaatu ak salaam googu yàlla na nekk ci sayidul wujud wa alimi shuhud ak sahabaam ak i ñoñam ak i ñippam yàlla ma si Xaaji Malik si radiallahu taala anhu si Xaaji Malik nee na wa innahu is araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuura nabil alami lii mbir nag tey mbir dëgg dëgg dëgg dëgg pour nga war a xam nag sunu waa ji moom amul moroom amul dend mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa lii mbir tey mbir is aradallah bi yàlla nammee nag sos nu nun yàlla bi mu naree sos aw mbindeef xeet wii nu nekk muy nit wu bàyyi koo ci jenn maam di ñuy wax aadama sunu borom neena na si daxaj maa ngi nee na abaana min abaana feeñal na min nuurihi ci leerug boppam maanaam tibb na ci leerug boppam nuura nabil alami leerug seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nu xam kon muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla la yàlla moo tibb ab tibb def ko muy ak leer leer googa nag mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa moo jaamu yàlla la ca war moo topp yàlla la ca war leneen lu dul lii symbole ngay def waaye moo jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko ca ngërëm loola moo waral yàlla rafaatal ko mbindeef yi mbindeef yi ngay dégg fii yépp yàlla rafaatal leen seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax innal awaalima aaliha wa saafilaha ashiatun talaat min afdali nusumi si daaj maa ngi nee na rafaatal googu yàlla rafaatal yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni lu ma bind yaa tax wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmuudi wax wa xabibu yàlla nee na bindu bindu ma dara dara dara ngir lenn kurul muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa bind ngir sama bopp waaye lulul lool na ku ma bind rek muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ma bind la waaw xalaqtuka li ajli wa xalaqtul ashyaa li ajlik yow dama laa bind ngir man toi c'est pour moi ma ngoog waaye les choses c'est pour toi wala c'est pour vous ngeen jégal ni imaam Mor Seck boo jógee nga lijjante ma lool moo tax xaj Haj yi nee na indal awaalima mbooleem jamu alam awaalima continent yi mboolem continent yi biddéew yi ngay seen yëpp mu war a tekki ay planète war a tekki ay mbindeef yu fa nekk di jaamu yàlla comme planète bi ñu nekk muy suuf niñ fi jaamu yàlla ñàkkul ne na yeneen mbindeef yu nekk diggante fekk asamaan ñàkkul ne na yeneen continent yu nekk foo xamante ni ba tegewu ko fa waaye lépp nag si xaj maa nee na aaliyahaa féete kaw wa saafilahaa ak ya féete suuf yépp ashiatun ay ferñeente lañu talaat yu fenk xamante ni mi ngi bàyyi ci leerug seydina muhammad sallallahu alayhi yi nga gis yépp asamaan seeg lépp loo séen ba mu lay yéem rek achi atun ceeñeer la achi atun euh, ferñeent la talaat yu bàyyi ko min afdali nusumi ci leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon di nga ma wax ni waaw aadama nag moom kon moom fu mbiram nekk lii lépp ma lay wax booba déggoo ñu tudd fi aadama déggoo ñu tudd fi keneen déggoo tam ñu tudd fi leneen waaw kañ aadama booba xewagul ndax déggoo ma wax la suuf déggoo ma wax la ndox déggoo ma wax la asamaan déggoo ma wax la kursiyug lawxoog xalamak safaraak ajjanaak déggoo dara taxaw fii seydina muhammad sallallahu alayhi wa rek moo fi nekk ak boromam muy ak leer gu sunu borom subhaanahu wa taala di defar ngir boppam kooku moo ko fas yéene jaamu te dana ñëw ci jaamu gi incha allah léegi kon aadama ñëwagul waaw si comme yaa ni yaa xaayisal bahri yéen ñi doon dem ñëw leen kon ana aadama mu ni wa alama allaahu wa alama allaahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nasami yonenteel muhammad sallallahu alayhi bi ko yàllay xamal ni ko yow la yow laa tànn yaay man maay yow yow laa yaa ma gënal ci lépp ku la reconnaître dinaa ko reconnaître ku la reconnaître duma ko reconnaître bi laa mi diini yow sama mbër yow laa bind ngir man leneen loo fi seen yaa tax booba ana aadama mu ne booba aadama mi ngi ci diggante ñu koy def moo jóge ci ñàkk war a jëm ci nit booba aadama defaroogul nekkagul dara xàmmeegul dara booba la yàlla ràng sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam garaatu nubuwaam mu war a xam ni moom mii kon euh, mooy ki yàlla jiital ci léppam <coughs> Seydi Hajji Maalik nee na uyuunul arwaaxi min nuuril hudan bajasat fa innahu jinsul ala maadinu sutmi mu ni way selli ruux yi ruux yu sell yépp yàlla nara gërëm ak sàkkute feeg mbindeef yi yàlla yépp min nuuril hudan ba ja ñoo ngi facce ci leeru mustafa sallallahu alayhi wa sallam in bajasat facc nañu min nuuril huda ci leeru Moustapha huda mooy yonent yàlla sallallahu alayhi wa wax naa léegi tur yu rëy yi nga xam ne moom la am nee na uyunul arwaax yi seetlug ruux yi ruux yëpp min nuuril hudan bajasat ci réew yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñu fëcce Cheikh Ajmali nee na fa innahu loolu day al jinsu mooy xeet wa laa wa gën a kawe sax maadinu sutumi mooy mbellum askan yi mooy mbellum askan yi Cheikh Ajmali nee na lii mooy dëgg dëgg dëgg moom daal moom mooy yonent yàlla Muhammad daal mooy garab gi mooy centrale dynamo bi mooy tey centrale bi nga xamante ni ci la ñuy branché courant bi ci la ñuy branché poto yi ci lañuy ñuy lépp ba ci desanteer yi kër yi mën cee jëriñu kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam du moroomu kenn ashraf al xalq si xaj may nee na wa xalqul axlaaqi baasul anbiyaa lépp day li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanabi nee na wax xalqul axlaaqi bind gi yàlla bind mbindeef yi baatul anbiyaa yi yónni gi yàlla yónni itam yónent yi yépp day du dara lu rekk li zuhurihi mooy annoncé jàmbaar ji annoncé ponkal mi waa jaa ngi ñëw de mbër maa ngi ñëw de mbër maa ngi ñëw de billaay bu ñëwee ngeen xam ne mooy mooy mooy ponkal mu ngoog nee na ak yëgle la akuk yëg akuk annoncé publicité la faa alam xamal ni wala tanami bul nelaw bul def def la de yonent yàlla yónni woon ñëpp ñii ci ab ruq lañ leen di yónni ñii ci quartier ñii ci wenn xeet ñii benn système demal nga ni leen man la ñii mu leen dem leen ngeen bàyyi leen peese bi ak natt bi neen ko defe du noonu ñii nangam ak nangam bu sa mission jeexee nga ñëw am na ñu fi nekk yàgg fi lool comme ku mel ni yonent Yàlla Nuux am na fi parce que junni at yu manqué cinquante xam nga ñaata la amoon ci li gën a siiw quatre-vingts membres juróom-ñett fukki nit dong ko gëmoon te def na fi junni yu ëpp kon xam ni dafa ñëwoon rek pour la forme. te def ñaata at laa la wax junni at mii yu moyen cinquante ans pour nga mën wax ni Moustapha du du moroomu kenn sallallahu alayhi moom ñaata at la fi def soixante trois ans kañ lañ ko yónni quarante ans dund na fi quarante ans yónni wuñu ko sant ñu ko dara sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dem ba quarante yi mat yàlla doo ko wax ni yónni naa la mu dundaan mu dundaat fi vingt trois ans kon wooteem bi yëpp vingt trois ans la ñaar fukki at ak ñett la woote àdduna bi yëpp yëpp àndandoo unanimité baatub laa ilaha illallah àgg fa ba ku gëm gëm nga ku lànk yaa xam caay-caay ak bon ak iñaan ak nar a texee di moo tax nga lànk waaye ñi yàlla namm ci ñoom yërmande ñëpp nangul nañu ko sallallahu alayhi moo tax fii aalamil mulk fii aalamil mulki wal arwaaxu taabiatun lil ruuxi wal jismi haza xaayatul karami fii aalamil mulki mooy continent bi ñu nekk adduna bi ñu nekk wal arwaaxu ruux yépp taabiatun way faj facce lañu way topp lañu way bokk lañu li ruuxi ci ruuxam nga ruux yépp ci ruuxam yi la ndax bu ko yàlla bindee alastu bi rabbikum ja moom rek moo jëkk jóg ni bale ni ci des war a wax ku waxuloon bale doo ñëw nee na jismu yaramam wak jëmmam jë taabiatun way topp lañ ca moom rek kon ruux yaag jëmm yaag yépp ci ruux sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu facce ci la ñu topp ci la ñu roy si daxaj maa ngi nee na haza lii kay xaayatul karami fala tedd nga fala tedd nga mën a yem fala tedd nga mën a yem haza xaayatul karami sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni wa kaana muxtajiban min qabli fi xujubin yusabbixu allaha fiha gayra muttahimi kullu xijaabin aqaama al badru min xuqubin fiihi li taati mawlaana bila saami sidaaj maa ngi nee na ba ko yàlla bindee muy ak leer gu mu bàyyi bu mu jële ci jëmmam moom sunu borom leer googa moo nekk muhammad sallallahu alayhi wa la yàlla sant mu jaamu ko wakaana kaana muxtajiban min qable fii xujub fii xujubin nee na yàlla dugal na ko ci ay faculté bu mel ni xale bu am bac dem université dugal nañ ko ci fac boo xamante ni euh, fukki junni at ak ñaar leer googu nekk na fa mooy leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi fukki junni at ak ñaar mooy fa qudratun minnatun min qabliha izamun wa rahmatun wa saadatun li mustalim karaamatun baadaha fi had fi addi manzilatun hidaayatun wa nubuwatun fala tahmi wa rafatun taatul mawla shafaatuhu fiha tamaamu li za tartibi faxtakimi mu ngoog sa xaj maa nee na wa kaana nekkoon na muxtajiban min qabl fii hujubin fukki junni at ak ñaar géej maanaam faculté bi ñu ko jëkk affecté mooy fac xudra géeju kattan suñu boroom yóbbu na fa leeru Muhammad sallallahu alayhi mu jaamoo ko fa fukki junni at ak ñaar di wax subhaana rabbil azim wa bihamdihi subhaana rabbil azim wa bihamdihi subhaana rabbil azim bi hamdi saasewul position saasewul ñaan waxul leneen douze mille ans sunu borom tàmpel ko mu am fa beneen lissance ñu dugalaat ko ci minna xijaabu minna mu am fa fukki junni ak benn di wax subhaana aalimi sirri wal xafiyi subhaana aalimi sirri wal xafiyi saasewul position waxul leneen duggul ci leneen lu may di xaar suñu borom jox ko fa ndigal moo tax xale yi jublu ci jàng nga xamante nii boo bëggee bari xam-xam doo yàkkamti yàkkamti saleer di jiiñ jamono bi nii jiiñ jamono bi nangam gis nga jàng bala ngay am li nga bëgg dëgg-dëgg il faut nga kañ ñas ba nga xam ne nii bis boo àggee ci li nga bëgg rek ñëpp lay nangul ñëpp lay nangul ndax danga jaar fa nga war a jaar waaye eh, boo ko àggaleeg ay wax àggale kook yeneen rek tabaarakallaahu yaa ngi ñëpp a yem te ku yem ak ñëpp am li nit ñi am rek mbaa mel ne nit ñi donc doo doo na kenn doo gën kenn mbokk yi ñuy déglu ñu teg suñu baaraam foofu nga xam ni mooy wa wax muxtajiban min qabli fi xujubin fa qudratun minnatun ba ñu àgg ci eh, suba ak jàmm ci waxtu wi bu soobee suñu borom subhaanahu wa taala daanu ñëwaat ak yéen nag ci faculté yooyu nga xamante ne moom la leeru sidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam di xuus nan lay mujjeek moom ñu ngi gërëm suñu bokk sponsor yi yëpp fa tabaarakallaahu di lay ñaanal jàmm ak xéewal ak ndam seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye loon ci waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa